am mbégte ci confiance bi ngeen am ci man ba tàllal ma seen micro ma leen di déglu. voilà ñu jëm ci bés bu bu am am solo muy euh, euh, Modou Lo ak ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène ñu war a euh, bëre revanche nan nga gisee combat boobu. xanaa làmb làmb ju war a neex. làmb ñaari champion. làmb ñaar ñoo xamante ne bu ñuy tudd làmb tey ji dañ cee bokk def ci lu rëy ci fulla ci fit ci jom hmm, ci mën a bëre miin miin géew te toll ti ay xale te lu nu bëree rek mu doon événement vraiment ñaar la nu ñoo xamante ne nii bu dee Eumeu Sène jaar-jaaram ci làmb sonn ci lool nag parce que boo xoolee nombre de defet yi mu am nga xam ni sonn na ci làmb boo xoolee komba yi muy yépp yëpp derby lay doon ah combat bu mu bëri rek boo ko xoolee dafay métti ah laataa muy jot nekk roi des arènes am na ci jaar-jaar bu métti am seen bàll bi numéro 2 ñooñu ay Xaadim Njaay ay mbëru làmb ji mbëru amateur lanu waaw moo tax bu dee bëri seen làmb il faut mu metti il faut mu neex bu dee Modou Lo moo gën a nekk xale te bi muy ñëw ñu bëri fooguñu woon ni mën naa egg fii ndax tolluwaayam mais wane na li tax ñu xam ni war naa mën a yegg fii mu yegg si te moo ko may boppam c'est vrai que presse bi liggéey na ci ci ñoom ñëpp. waaye nag lenn li nag diggu café borom a koy suukar naan te yaakaar naa ni suukar na ko liggéey na ci ba tax mu egg fii ndaxte bu ñu demee bay tudd Modou di tudd Eumeu Sène liggéeyu Modou moo ko waral moo ko waral bu liggéeyul woon du toll foofu ndaxte Eumeu Sène dafa bokk ci ñi dàq bëri ci làmb ci te wane na ko. ñu gis ni def nga ay émission euh, a yoon yoon ak ñoom ñaar euh, ci biir combat bi ñu gis ne Modou bi mu jógee États-Unis indi na état bu wuuteeg bi mu bëree seeg Balla Gaye yokku na masse tuuti yokk na doole tuuti par rapport ak komba boobu nan nga gisee euh, Modou Lo état bi mu indi. waaw comme li nga ko waxee rek. ni nga ko waxee rek parce que bi mu xoolee combat am ak euh, Balla Gaye du question wu dafa tuuti woon de Balla Gaye rëyoon <laughs> Balla Gaye bari woon doole dama baal fiis Balla Gaye bari woon doole kenn xajowul woon ak moom bis booba foofa ci bigu géew ba Modou Lo tuutiwul woon de boo xoolee Modou Lo ba bëreeg Eumeu seen ca combat bu njëkk ba ah, ëppul Modou Lo bi bëri ak Balla Gaye mais Balla Gaye amoon melokaan goo xamante ni bëri moom ci bis boobu toll ni moom daan ko wone fa leneen lu dul loolu du woon yomb keroog Balla Gaye ku mu mënoon a bëril moo lay daan ah mais Modou Lo tamit bi mu demee ba gis na léegi bëriwul ak Balla Gaye mais Eumeu lay bëril te jot na bëri moom ta daan na ko mu ne xaaral naa jóg naa defarwaat parce que defet dafa metti et puis defet dafa metti dafa baax defet moo lay defar mooy tax nga xam sa bopp ah. te Modou Lo defetam bu mujj bi naqari na ko parce que boo gisee kàddu yu ko Eumeu Sène wax keroog na ko touché na ko te yu mel noonu dafay dafay indi jom dafay indi njàmbaar du xol bu tàng moo koy faj déedéet nit bu la waxee dara loo xamante ne ni wax ja dalaa naqari la koy faj du fayantoo ci kàddu mais da ngay wane li tax mu naqari la. oui naturellement gis nañu réaction am amoon na sax problème continuer li nga xamante ne moom mooy face à face ndax euh, am lu ko naqari. waaw bu ab defet baa ko naqari ka ko daan ak ka ko wax yow ki la ko wax yaa ko daan mm-hmm. ah mm-hmm. mais mu jël jëfi keneen euh, xam nga. war xamal la ni yow kooku la daan ñaari yoon maa ko daan ñaari yoon ba pare moo la nangam mm-hmm. loolu xam nga dafa metti Eumeu Sène nekk euh, adversaire boo xamante ne day faral di encaisser ku combat am yëpp noo def mu encaisser ku est-ce que wóor na mu jëm ci ki nga xamante ne Modou Lo la nga xamante ne xeexkat la bagarreur la voilà xeex yooyu xeex bi foofu. ah xeex dañuy xeex li leer mooy xeex ba mu xeexoon ca commencement ba ca combat bu njëkk ba dinañ ko xeexaat ndaxte ku ci nekk bëgg ngaa jekku sa morom daan te combat bi ouverture bi mooy ñu xeex ouverture bi mooy ñu xeex te buñ xeexul komba bi peut-être mu yàgg mën na amit combat bi buñ ko sifflé mu jeex parce que lu nekk mën na ci am waaye Eumeu Sène dina éviter la daloon ca combat ba mooy maanaam songu ñeenti yoon jàpp tànk te mënoo ci dara ko rok c'était pas son jour loolu dayam xam nga ëmma loolu comme comme ba ko dalee dalay jaaxal parce que ak ëmma ni mu yàggee bëri expérience bi mu am mën a bëri gi nekk ci moom di jàpp nit tànkam te saa wa ko jàppee doo ko daan dafay dina ko jaaxal bi yon dina dem wuti pexe waaye Modou Lo tamit dafa mbëru tànk la parce que du ëmma seen doo nga ko jàpp ci tànk daanu ko Lac de Guiers ko jàpp ci tànk mën fexe ba daan ko ah Paul Maurice jàpp na ko ci tànk voilà yaa ngi koy am na yeneen combat yoo xamante jàpp nañ ko ci tànk mais mënuñu ko cee daan kon léegi bu dee Eumeu Sène dafa war a mën a bëgg a daan Modou il faut mu jëli pexe xool lépp enjeu combat bi revanche la fay fay mer la Modou Lo war na def war na confirmer ci digganteem ak euh, Eumeu Sène pour nekk roi des arènes ba pare fay naqar gee ko dal ci Balla Gaye te dootu ko fàtteeti c'est clair ah Eumeu Sène nag dugg ci combat bi bëre ci jël roi des arènes bëre benn yoon daanu a ah, loolu loolu tam musi bale ci moom te loolu musul am ñi fi jël roi des arènes da ngay daan daanaat daanaat yenn saa yi waaye daan benn yoon rek ñu nangu ko loolu tamit gàcce lay doon moo tax combat la boo xamante ni ñoom ñaar ñëpp am ah, muy Modou Lo di Eumeu Sène enjeu bi dafa doy waar parce que Modou Lo ay gaam bëgg nanoo dégg au moins sa presse bi na la roi des arènes mais kon toos est-ce que fi mu jëlee fi mu jëlee Eumeu baax na ci moom kon. amee ah, mais làmb la il faut nga jëlee ko fenn. xam nga bu jëkkoon mbër yi ni daan def ñoom jamono ñoom mbéy géeg yooyu bu ñu bëree grand combat. dañuy dem seet ku nooy bëreek moom. mais léegi xaalis tax na loolu mënatu la am. nga Balla Gaye bi mu daanee Modou Lo waroon na dem seeti benn booy. wala seeti kenn koo xam ne xaw naa yamamaay. mu bëri moom mais ma nga fa toog di xaar ko am ngan ponkal lay xaar Modou bi mu bëri ak Eumeu ak ballagay Gaye combat jeex mu génn gunu stade bi ñu annoncé Eumeu Sène Modou Lô dafa jaaxal ñu bari quand même du woon yoon daf du woon yoon mais booba man bi may toog ci plateau bi xam naa ni Modou Lô ngi bëre waaye moom ak seen taxaw na mais du woon yoon mais business moo ko waral waaw li Tyson doon wax euh, sport business moo dab gars yi xëy na moom ba mu koy wax ca fin bala mais booy nag dañ cee toll ci sport business bu dul nag sport business combat Eumeu Sène Modou Lô amul woon raison d'être mais sport business moo ko indi. Euh, ñu ñëw ci li nga xamante ne.